Futur Média mbokk ànd ak ñun ci xibaar yi marax gi daleen ak jàmm gannaaw bañ leen nuyoo li ci gën a fës ci xibaar yi bokk na ci eh, xibaar bu rëy bu tukkee ca Gambie eh, ki nga xam ne moom lañu ñu dénk wàllu kaaraange gi nag moom moo xamle xibaar boobu wax ni eh, moom Ousmane Badji ne bëri na ay président yu nekk fii ci dendub Afrique bi doon sàkku ci moom mu këppatal nguurug yaa jàmme waaye moom moo lànk ci waxtaan wu yaawu mu seq ak barka ba la ko xamle moom chef moom chef d'état-major bu armée gambienne ci euh, dikk ci nu mu gën yaatoo ci leneen ci wàllu politique xalifa euh, Sall ak Barthélemy Diaz naka la ñuy def ba du ñu euh, ba am ay jafe-jafe ak wàllu yoon ñi nga xam ni nag ñu ànd ak. kon Khalifa Sall ak Barthélémy Diaz euh, seen jàmm seen jàmmarloo ak euh, wàllu yoon ñi nga xam ne dañu fare ak Bamba Fall nag li ñu xam ne mooy dara war lu ko lu dul wàllu politique euh, te nag wàllu politique googu dañ ko war a teg ci suuf te jublu ci wàllu carte biométrique yi ndax loolu mooy li am solo te nañu def seen kéemtalaay kattan ba kii di Bamba ñu génne ko ci kaso bi ci wàllu xibaar ba tey lu aju ci mbiri inspecteur ak inspecteur inspecteur ak contrôleur yu travail ak sécurité sociale ñoom nag ñaawlu nañu ni nga xam ni noonu la euh, jëwriñ ji ñu gàlloo di ministre du travail doxale ba tax na sax ñoom xàppati nañu ni faaw ñu euh, dem ci grève euh, du mën a ñàkk préavis bi daanaka teg nañ ko ci tablu boobee jëwriñ leneen ci wàllu xibaar itam aju ci maanaam ñi nga xam ni ñooy yëngu ci wàllu dox jàmm ci dëndub Afrique bi euh, mu nekk nag taxawaay bu am solo boo xam ni euh, prix Macky Sall la raaya bi koy tax ñu ràññee ko jébbal nañu ko euh, kii di Youssou Ndour mu gis ko naka noonu ak Abdou Diouf dinañ ci dikk ak Maodo Malick Mbaye bokk ci ñi nga xam ne ñoo fent boobu raaya mbokk yi na incha allah ñu dikk ak yéen ci yaatalu xibaari marax yi ak télévision Futur Média. ci waxtaan bu yaatu bu mu berndelee groupe Futur Média moom Ousmane Badji fësal na fa euh, wax ni ñett ci ay njiitu réew yu nekk fii ci déndu Afrique bi sàkku nañu ci moom euh, ci mu këppatal nguuru Yaya Jammeh waaye moom moo lànk euh, dañu déglu waxtaan boobu nga xam ni seq na ko ak Barka Ba foofa ca Gambie. kon mu mel ni élément bi kon dafa jàppandiwul ak la régie. Euh, kon ñu daal di ci jokkoo ak Barka Ba moom mu ngi nekk kon ci téléphone bi euh, Barka Ba ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay ak euh, Barka niñ ko waxee ci euh, ci ndoxte gi mooy euh, kii di Ousmane Badji nga xam ni moom moo jiite armée bu Gambie am na waxtaan bu yaatu bu ngeen seq boo xam ni sax dinañ ko dégtal mbokku téléspectateurs yi ci le ci télévision Futur Média waaye bokk na ci li gën a fës te waxtaan wa xibaar boo xam ni wax na ko ni daal am na ñett ci ay njiitu réew yoo xam ni sàkkoon nañ ci moom ci mu këppatal nguuru Yaaya Jammeh waaye moom moo lànk ndax loolu mën nga ñu ci dikkal. waaw en attendant ngeen teg élément bi loolu waxtaan la bi nga xam ne bi may mujj ñëw Gambie laa ko waxtaanoo nag CDS euh, Ousmane Badji lieutenant général mu def ci ay révélation yu am solo pour wax euh, ñoom ci biir armée bi nan lañ dundee woon crise post électorale di fi ñëpp fekkee te mu indi woon jeexi jaaxa ak Gambie ci boobu noonu la joxe ay xabaar yu doy waar ne am na ñett euh, président yoo xam ne sàkku woon nañ ci moom bi mbir mi méttee ñu ne ko na këppatal nguur gi mais nee na moom euh, général loyaliste la loolu du ko def moo mu lànk ba ba suuf loolu bokk na ci lenn yum dénk am na leneen tamit euh, yu ma yu te yaakaar naa ne ci biir édition bi xëy na di ngeen ko dégg. d'accord mais euh, nettali ci lamiñu boromam la daxee Pape. jërëjëf Barka loolu dama bëggoon ñu dikk ci rek ndax lu am solo la waaye dinañ ko dégg ci ay kàddu yu boppam waaye dañuy des ak yow Barka ba ndax yaa ngi foofu ci Gambie euh, ñuy amal nag seen feetug indépendance dara ko président yu bëri rawatina kii di président bu Sénégal di Macky Sall dégg nañu ni sax egsi na foofu naka la waa Gambie terto président bu Sénégal di Macky Sall foofu waaw avion président Macky Sall Pape mu ngi atterrir ci aéroport Yundum tey bu 16h jotee Macky bi mu ñëwee fii comme ni ko nit ñi njortee woon euh, mbooloom mu takku takku takku moo génn pour gàttanu ko mu ànd ak président Baro ñu daal di wër quartier yu bëree bëri ci biir Banjul euh, foo sànni mbart mu takk parce que nit ñi dañuy génnoon pour wane seen cofel ci Sénégal wane seen cofel ci président Macky Sall ak waa CEDEAO taxaw bu ñu leen taxaw pour dimbali leen ba ñu génn ci guute gi ñu nekk bu ñu nekkoon euh, mu ngi ñëw seize heures waaye balaa muy egsi ci dalluwaayam euh, def na presque lu ëpp ñeenti waxtu ndax euh, quartier boo dem muy Westfield muy Serekunda muy Traffic Line ak Kootu feneen ak feneen nit ñi dañoo génn mbooloom bu takku takku takku ñoom Gambien yi ak aussi suñu mbokk sénégalais yu nekk fii pour sargal président Macky Sall mu am ci tey test boo xam ne bëriwuñu luñ koy nemmeeku di ko di ko gis ñu koy jagleel euh, président de la république Pape. waaw Barth mu ñëw nag ànd ak délégation bu takku. Mhm. mu ànd fekk ministre des affaires étrangères ministre des forces armées ak yeneen kilifa yu nekk ci nguur gi. délégation daal bu takku ànd nag président actuellement ñëw nañ ba tallu na mu ngi ci talluwaayam ñu ngi xalaat ne fi ak si kanam dina am benn euh, sargal beneen bu ñu koy sargal mooy benn reer. boo xam ne président Mboro daf ko koy daf ko koy teral. waaw ah, ñi ngi doon wax ni sax waroon na daje ak. Euh, indépendance bi waaw. ñi ngi doon wax ni waroon na daje ak doomu Sénégal yi dund foofu ca Gambie moom président Macky Sall. waaw am président en général su demee fenn euh, ci bitim réew dafay am euh, sénégalais yi daf leen bëree di leen recevoir daf joxe ay ay audience. Mhm. man bi ma koy bàyyi ci hôtel bu mu bu mu dal. Euh, mu ngi toog foofu am ay kilifa yi nga xam ne ñu ngi ko ñu ngi ko wër yaakaar naa ne dina fa joxe ay audience euh, rencontre communauté sénégalaise bi parce que loolu la bëree nemmeeku. Hmm. Euh, loolu la ñuy nemmeeku su tukkee à l'étranger. mais mbir dëkk dëkk yi nag suba bu soobee yàlla la lay lay tàmbali mooy coïncider ak fet indépendance bi mu ngi xaar si ay yeneen naataangoom président de la république. Hmm. Hmm. yoo xam ne dañu war a ñëw testu fekkee fekkee set bi nga xam ne. Gambia yi ñoom ñëpp moom lañ doon xaar. waaw ci ñooñu ñuy xaar ñuy ay président wala euh, ñeneen amu ci amagul ñoo xam ne si nañu bu dul président Macky Sall. waaw président Macky xam nga moom la ñu wax ne moom mooy guest spécial hmm. moom mooy invité spécial. tout à fait moom euh, ko tàmm hmm. euh, ci yeneen hmm. président. pour wan ko ne cofeel bu waa Gambie am ci ci Sénégal ñeneen ñi xamaguma kañ lañuy ñëw mais yaakaar nañ ñi ci guddi bi dina am ñu bëri ñu ñëw ndaxte ci biir indépendance bi suba ci huit heures euh, mbir yi war na commencé tàmbali. waaw euh, barka laaj bu mujj rek euh, ñëwoon nga Gambie ci jamono Yaya Jammeh ñëwaat nga fa ci jamono boo xam ne nekku fa lan moo soppeeku ci Gambie. fop lu lu soppeeku bëri na lool lool lool lool ci gàttal rek li ñu mën a wax mooy dafa mel ni ay nit ñi nga xam ne dañu nekkoon kaso ñu génne leen euh, léegi Gambien yi dañuy comme ni ñu koy waxee fii dañu commencé di happy di di enjoy di enjoy di di enjoy mm-hmm. themselves mm-hmm. daal mel ni ñoom dañoo moomaat seen bopp loolu nag wax dëgg yàlla loolu lañu fi nemmeeku ñu ngi kontaan trop mel ni ñu nekkoon ci. jafe-jafe bu métti léegi xar kanam yi ko lañ ko gis nit ñi dañu dañu kontaan lool lool lool ci wane seen seen mbégte tey ànd ak dal ak ak xel bu dal daal. Mhm. kon wàllu kaaraange mën nañu njort ni euh, xanaa manqué wu fa de fi mu nekk nii. ci jamono bu ñuy war a dalal. kaaraange moom Pape fii euh, manqué wu fi ndaxte CEDEAO ak doole doole lañ fi duggee. Euh, foo dem ci gam Banjul sécurité bi ñu ko assuré te bu mot sëkk la force boo xalaat bu waa CEDEAO ak waa Sénégal ku nekk ak spécialité ak yeneen dëkk yi ñu ngi fi euh, assurer sécurité bi loolu moom nekkul moom moo manqué tey Gambie ñu lëkkaloo ceeg seen jërëjëf Barka kon ñu lay jox daje incha allah xam naa ci waxtu néew ci waxtaan wi nga si xam ni seq nga ko ak usmaan baat ji euh, ci la ñuy des sax ndax moom moo amee armée bu Gambie euh, moom moo joxe xibaar boobu nga xam ni kii di Barka ba dëggal na ko waaye nag ni mu ko waxee ci kàllaamay boppam lañ koy koy dégloo moom Ousmane Badji moo xam ne ni am na ñett ci ay njiitu réew yoo xam ne woo nañu ko doon sàkk mu coup d'état Yaya mu lànk euh, dañuy déglu yooyu kàddu ak ba ak Mor Xarma ñi ko taataan. am na dëkk yu mag ñetta yu mag kool pour ma jël réew mi. waaw. ah général Ousmane Badji loolu nga wax moom doy na waar di kon nga ne am na ay ñu la woo ñu ne la pour nga def coup d'état fii biir Gambie loolu nu mu demee. ñooñu xam nañ seen boppa angale ñu ne when dry bones are mentioned all women feel uneasy yàlla mu ne sutura la buga waaw yàlla def tamit après loolu ñu ngi noppi suñ puusoon ni kon dinaa leen wax seen tur ak heure buñ ma ooyee waaye jaru ko comme ñu ngi <laughs> noppi ñu def sutura waaye dinañ ko def sutura moo laa woon ne man utuma xaalis constitution bi laa respecté lu ma duggee armée dugguma pour benn bés ma def coup d'état coup d'état constitution bi buggu ko xaw ma French de waaye English constitution buggu ko. Hmm. Baro moom la nit ñi sànni dina toog. waaw waaye ku ma wax ne jëlaat réew mi ngir misunderstanding bu ndaw bi mbaate président bu màgget bi mu ne du joxe dafa xee ma ne ko moom moo wax loolu opinion bi la wax waaye moom kenn du jéem a di am na yum ñaakaar hmm. waaye kon bàyyi leen ku yàlla jiite mu ñëw mu mu mu yore site bi. Ah, dañuy des ba tey ak moom Ousmane Badji ndax xam ne leen loo xam ne wax na ko mooy ci wàllu kaaraange moom ah, jàpp na ni Sénégal ak Gambie dañuy wéy di lëkkaloo ba karange sax dàkk foofe ah, dalal na xel itam ci wàllu MFDC muy fippu yi xam ne ni amatul kenn ku mën a daw làqu si foofa ca Gambie ay kàddoom ba tey dañ koy déglu ak suñu naataango yu ñu nekkal foofa ca Banjul. MFDC eh bu armée Gambie benn nekkoon fii. di seeti nga karange Gambi time boobu la MFDC mënut a dugg Kanilai moom mooy léegi armée Gambi ñu ngi fi ñu fi dafa mel ni nga am double wall bu mu njëkk a woon benn wall la yéen a dee eh, dankan door door a door danka bi lu mu jënd a bari loolu la am doole soo léegi benn danka la woon léegi beneen danka ñëw na fa MFDC mënut a yëngal benn bi mooj moo léegi ñaar secondly léegi dara nekkatul fa Kanilai yëpp indi nañ ko fii. hey MFDC ak seen MFDC amuñ problème ak ñun de mm. lu ñu amut problème ak yéen lii idéologie rek la mm. ni ñaa di xalaat di leen wax lu nekk rek waaye MFDC musu ñoo jël benn gànnaay Gambie wallahi ah, azim déedéet ni ñaa dee toog rek xalaat ne oh Gambie ñoo dee leen dee jox fetel ah dañuy bàyyi ko foofa ca Banjul ñëw fii ci Ndakaaru ak wàllu politique muy xalifa sàll di Barthélémy Diaz ñoom ñëpp dañuy wéy euh, di wéyal seen yéene ci wàllu politique lool nag ñoo ñi Bamba Fale ñoo ko xamle dañu wax ni dañoo bëgg a tëj seen gémmiñ waaye du mën a sotti leneen loo xam ne tam wax nañ ko mooy war nañoo xoolaat ni nga xam ne noonu lañuy ñuy doxalee ci carte biométrique yi waaye la ñu gën a saxal wax ko ñoom gars yi Bamba Fale yooyu mooy naka la ñu mën a def ba mu gaaw génn ci kaso bi Pape Fara ñi nga ak Mar Dieng wàcce kaamilu alxuraan bu dem ba nuroog mitin bi Khalifa Sall ak Barthélemy Dias ne xuus ci mbooloo bi ne ñoom daal wàllu politique bu ñu nekk benn xoqatal mënu leen ca jële naam sax bu ñu leen woowee ca dëkk xeex contre noot xeex contre l'injustice ko xeex contre la démocratie parce que am na loo xam ne kenn du ko nangu góor du ko nangu tey du ko nangu ëllëg dama dëkk bi kenn du nangu kenn noot la wala di tëj sa gémmiñ aucune menace ne passera aucune manipulation ne passera waxuñu Khalifa Sall dafa dëpp kees waxuñu Khalifa Sall dafa jaay suuf waxuñu Khalifa Sall dafa def ñaawteef wante ñu ngi wut yoon ba gàndal Khalifa Sall mu bañ a nekk candidat élection député ak élection président kooku ngeen dégg ko bu baax a baax a baax. ñi ànd ak Bamba Fall di ñaawlu tamit yenn rëq-rëq yi nemmeeku ci defarum carte d'identité biométrique. am na ñu ñuy juum seen carte. di leen yónni plateau. xaw ma ñoo ko tey xaw ma tey ñu ko. parce que mënuñu jël ay électeurs Médina di leen affecté plateau wala Guédiawaye gis nañu carte yi ñoo ngi interpellé daas. anomalie dañoo bare bare bare ñu ngi bindu waa Podor waa Matam bu nekk léegi Matam ëpp na pratiquement inscrits yi ñu fa mës a xam dans l'histoire du Sénégal. ñuy wëy di laaj ñu bàyyi seen maire ak ñi jàppandoo. Bamba sànniwul xeer sànniwul suuf rayul nit yorul paaka yorul yàlla yónniwul kenn lu ñu téye Bamba laa xamul. Bamba Fall c'est un élu Bamba Fall dafa am légitimité populaire. tey jii boo jàppee Bamba Fall c'est le peuple de la Médina nga jàpp et le peuple de la Médina est aujourd'hui ñu am nag mobilisation bu am doole foofu ca grand mosquée bu sanca ba waaye nag teewaayu police ba xawoon na fa indi jiixi jaaxa waaye amuñu benn jàppante bu ñu jógee ci mbiri Bamba fal ñu dikk dal ci mbiri Barthélémy Diaz moom nag euh, naam dañu ko daan lu toll ci ñaari ati kaso ak juróom benn weer yu muy tëdd kaso loolu nag kii di Ndiak fal xam-xam màcc ci wàllu yoon ne bu ñu ko dëggalee yooyee daan euh, mënatul nag falu fenn euh, waaye nag nee na loolu eggaguñ ci ndax comme parquet dañu ne dañuy dabu booba àtte nañu xaar ba dabu ko ba dëggal ko bu ko defee nag nañu jàpp ni moom Barthélémy dootul mën a falu ci réew mi Alassane Ba ak Younouss Diatta balaa sori andi ay précision ci li yoon wax ñaari article bokk ci code pénal ñu mën leen combiner ngir mën a comprendre. article 34 du code pénal nee na bu fekkee ni daan nañ la daan boo xam ni euh, ci lim daal war na mën a yegg juróomi at ki lay daan maanaam àttekat bi. mën na faagaagal sa yelleef yooyu maanaam li ñu wax droit civique civil et de famille mm-hmm. pour tere la woote wala nga doon député wala yu mel noonu euh, beneen bi moo di mm-hmm. su fekkee ni daan biñ la daan mm-hmm. weesu na juróomi at euh, su waxtu woowu jotee kon ci yoon sañ nañ faagaagal lépp lu jëm ci droit civique civil et de famille waaye jàngat boobu dañ koy war a lëkkale ak li ñu wax article trente cinq bu code pénal code électoral bu Sénégal itam fixé ay conditions. nee nañu nit ki nga xam ni dañu ko daan te mu def jéye ji ñu wax crime maanaam mu rey nit. kooku wa mënatuñ ko mayatuñ ko muy wote Barthélémy Dias ñu daan ko ñaari at juróom benn weer képp mu war ko tëdd beneen procès ñi koy xaarandi ginnaaw appel bu procureur bu tribunal correctionnel def bokk Barthélémy jaas wala ñàkk mën a bokkam ci jonganteb législative yi jafe loolu ci jamono ji ñu mën cee àddu kooku teel na tont mën ci am mm. ndax fii mu ne comme li tubaab di wax appel am na léegi mbir mi sotteegul maanaam pënd bi wóoreegul comme loolu am na dañuy nekk ba nga xam ni euh, am na décision définitive maanaam am na atte boo xam ni kenn mënu ci dellu gannaaw su fekkee ni euh, maanaam daan bi ñu ko daan wéyal nañ ko ba nga xam ni ca waxtu bu jotee kenn mënul ci dellu si gannaaw kon euh, sañ naa ni du mën a jongante ci élection yi dikk ci affaire député Barthélemy Diaz nag juge bi reconnaître ko coupable ci faatub ndaw mi di Ndiaga juuf ginnaaw condamnation ci première instance carrière politique nag mel ni lu xaw a menacé wante balaa sori ñu xaarandi procès en appel bi li muy jur ndax ñu mën a xam Euh, syndicat inspecteur ak contrôleur yu travail ak sécurité sociale ñoom nag ñoo jëm ci préavis euh, li ñu gis nag mooy doxaliinu jëwriñ ji leen gàlloo te muy Mansour si moom la ñu rafetluwul loolu nag moo tax ñu ne euh, faaw ñu dem ci rawatina ci élection yi nga xam ni dëgmal nañ ko doxalin ba gisuñu ca seen bopp nañ ko yaakaare woon Pape Fara Ñing ak Younous Diatta li am biir département du travail du ñu ragal wax ko c'est une mal gouvernance li nu mel la ñuy ne moom nag daa tëj buntu waxtaan yépp te fi mu ne lépp lu xew moom la. Mansour Sy ministre du travail mi ngi wër di wax di communiquer ci loo xam ne ñun engagé wuñu pourquoi parce que dañu jàpp ne bu ne yow yaay ministre bu yor dialogue social sa kër bi am benn syndicat kese moo fa ne muy syndicat des inspecteurs et contrôleurs question yoo xam ne ñun ba 2008 ba ñuy defar suñu plateforme moom mooy question bi ñu inscrire en lettre d'or la motivation les indemnités le contrôle ñuy jéego ba ñëpp pacte national nañ ko dugal tuddee ko indemnité de lutte contre l' évasion sociale mënuñu comprendre nga ne da nga ciy wër di wax ak opinion bi di waxtaan ak ñeneen te syndicat bi nga war a diisool nga tëj say bunt alors que yaa leen yilif leneen li nga xam ne moo leen gën a métti moo nekk seen condition de travail ak ñàkkum tàggatu ci seen métier bi. ministère du travail mooy ministère boo xam ne zéro franc moo fa ne ligne de crédit loolu tax ñu ne plan de formation il est tanque que gouvernement bi góorgóorlu ci plan de carrière yi aussi ñu fexe ba ñu am ay points de chute ay responsabilisation ak ay promotion ci biir ak ci biti suñu ministère. naam ñu ngi dund ak ay jafe-jafe. nee nañu nag ñoom def nañ seen warugal te sax inspecteurs yi dañoo bëriwul. déjà octobre bi ñu mujj a daje en 2016 li ñu amoon dépassé na 2015 te 2015 bu ñu xaymaa li ñu def ci visite d'entreprise au Sénégal ñaari junni yi daanaka jege nañ ko parce que nee na sànq 1931 visites donc lu mat ñaari junni te en 2016 dinañ ko dinañ ko weesu. SYTRAS fi mu toll nii nag teg na ci taabal bi yëg lu ne day grève ngir nag bëgg ñii di nguur gi ubbiwaat ay waxtaan seen diggante. Euh, Sirit moom genn kuréel la gu nekk ci dendub Afrique gi te yittewoo wàllu jàmm euh, ñoom nag euh, logo di mandarga bi ñu duppee prix Macky Sall ñëw nañ jëbbal ko kii di Youssou Ndour gannaaw itam bi nga xamee ni def nañ lu ni mel ak kii di Abdou Diouf Maodo Malick Mbaye bokkoon na ci délégation bi nga xam ni njiitu Sirit di Deo Naki Zimana ma nga ca woon dañu déglu ay kàddoom ak Demba Ndaw mi ko taataan moom Maodo Malick Mbaye. wax ni prix bu ñu koy jox mais prix bu ñu tuddee président Macky Sall la parce que dañu gis ni te bi ñu ko tuddee jàpp nañu Sénégal yëpp lañ ko tuddee. Mm-hmm. léegi lañ jóge ci président Abdou Diouf mu ne prix bi day récompenser le génie sénégalais maanaam nee na prix bi dafa jàpp ni ñëpp ñi nga xamante ni ñooy sénégalais ñoo ci war a gis seen bopp parce que suñu dëkk bi ci waxtaan lañ ko teg ci waxtaan lay mujj te dañuy wax ni. réeroo amul ñàkk waxtaan moo am li tax nag ñu tànn euh, Youssou Ndour ak le président Abdou Diouf ñu nekk ñoom ñaar rek ñooy nekk ay sénégalais ci fukki nit ñi nga xamante ni ci àdduna bi dinañ leen tànn pour ñu bokk ci comité boobu di jëmmal prix Macky Sall pour le dialogue en Afrique mooy président Abdou du ku ne xam ne ni jaar-jaaram ak li mu représente bu dee Youssou Ndour comme ni ko suñu président waxee dafa bokk ci mooy sénégalais bi ñu gën a xam ci société africaine yépp leen beneen élément bi mooy dañu gis ni aussi ci ay woyam ci waxam toujours lu méngoog lii ñuy def Genève la muy wax ci waxu dialogue donc moom bu dee ci wayam chaque fois doon na dellu si ci loolu tey mu am dayo bi nga xamante ni fu ñu ko tuddee ci Afrique ñu cërale ñu donc yaakaar na ni aussi war nañu nangu moo tax ñu sirit tànn ko boole ko ci fukki nit ñi nga xamante ni ci monde bi moom ak président Abdou Diouf nañ bokk ci comité bi jëmmal prix Macky Sall pour le dialogue en Afrique jëwriñ ji ñu dénk wàllu njënd ak njaay di commerce di Alioune Sarr demoon na ca euh, société bu euh, Patisen doon xool nag ñoom euh, seen liggéey ndax lépp tegu na ci yoon am na ci sax ay ndénkaan yoo xam ne jol na ko dénk ko askanu Sénégal dañ ci ànd ak Aïssatou Paye ma fa teewoon. professeur bi ko jiite ñu tuddee ko Mamadou Fall moo da ci ak fukki expert ñu defal ñu benn rapport boo xam ne wane na li nekk ci biir ci ay produits. won nañu ne amul gañ-gañ ci wér-gu-yaram waaye dañ ci dolli ne ñoom professeur yooyu xorom su ëpp ci toog day indi gañ-gañ ci doomu aadama ndax organisation mbootaay bi nga xam ne moo jiite wàllu wér-gu-yaram it da ko OMS organisation mondiale de la santé dafa joxe tegtal ne doomu aadama bu nekk waroo weesu juróomi garaam ci bés waaye boo fekkee da ngay dugal ay bouillon ci sa togg comme ñoom ni koy waxee sànq ndax ñoom nee nañu te beneen entreprise aussi ba ñu visité fan yële loolu la ñuy wax boo dugalee ñaari tablette ceeb togg jarul ngay dolli xorom jarul ngay dogg leneen waaye bu fekkee da nga dugal bouillon dugal xorom jàpp jën bi ngay togg dafa am xorom nga dugal yeneen ay produits yu mel ni ay produits yu bëri daal yoo xam ne dafa am xorom soo defoon ndànk di nga dem ay yéet ay ay ay ay gejj ay yoo xam ne daal tukkuleur yi ak euh, jolaay bëgg nañ ko lool boo deful ndànk di nga dépassé juróomi gramme yooyu nga xam ne OMS na ko ci bés bi te boo ci dëkkee bés bu yàlla sàkk nga koy def te comme Sénégal ñun wax dëgg dañu bëgg ceeb ceeb bu jën ko domoda kaldu yeneen ak yeneen boo deful ndànk boo ci dëkkee fukki at ñaar fukki at bu yàlla may fan bu gudd boo deful ndànk dinañ ne gaañ-gaañ sa wér ci diwaanu Thiès foofu euh, moom la ñuy dem caravane bu am solo boo xam ni ay soxna yu nekk ay joola euh, ci genn kuréel muy seen association ñoom nag ñoo am yéene yenn gox-goxaan yi nekk foofa ca Thiès ñu jàppale leen ci lépp loo xam ni seen càkkutéef la ñoom nag am nañ ci yéene def sax ay tali latérite ngir jàppale leen ndax soo seen yéene ci wàllu développement la daal di gën a euh, taxaw loolu nag ñoom joolaa yi ne dinañ ci lëkkaloo ak seen kal yi di seen ay gàmmu di ay séeréer Cheikh Anta Diop ci àndal ak say nekk étape bu njëkk ci karawaan national bi nga xamante ne ñu koy amal ñu duppee ko fraternité nekk benn jàmmoo te kuréel gi ëmb ay soxnay yu batiyaay joolaa nekk fële ci bitim réew dikkoon Sénégal ñoom ne nañ dañoo bëgg a dugal seen loxo lu jëm nag ci wàllu yokkute réew mi. séeréer ak joolaa benn la muy wane ni bu nekkoon wolof sa mën nañ ñëw ne la ñëwal bokk si ñun ndax ñun benn lañu nekk nañu français wante fàttewuñu fi ñuy jógee loolu moo tax ñu daal Sénégal boo xamante ne bu jar a respecté la loolu moo ñu tax a jóg. lenn loo xamante ne fas yéene nañ cee dugal seeni i loxet mu jëm ci wàllu njàng mi taxawu l'école yi ay jigéen lañ yoo xamante ne dañoo bëgg taxawu lépp loo xamante ne jëm na ci jàppale jigéen ak xale yi. dañu seetlu ne si école yi da ngay ñëw dugg si xale yi ñu am foo xamante ne fu ñuy ñëwee suturaal seen bopp waxuma xale yi rek wante même enseignant yi moo tax ñun ñu ni ñun ñi jigéen ku ci nekk am nga doom am nga jarbaat am nga lu ne bëgg nañu suñu yéene mooy lan mooy waxuma la Casamance mais Sénégal ba mu daj fu nekk école bu nekk la ñuy doore ba pare doog a ñëw ci lieu public yi mu am lan mu am ay latrine mu am ah, foo xamante ne nit ki mën na faa sukk daal di suturaal boppam bu ñu jógee si loolu comme niñ koy waxee lieu public yi c'est pareil lu tax parce que problème mu environnement la ndax def dem ci ginnaaw kër comme nuñ koy waxee defee ko ci mbedd bi loolu day wal wàcc wàcc ba ci suuf si yàq napp napp phréatique bi loolu mooy indi ba ndox mi ñuy naan loolu lay jur moo tax ñu ni santé bi ñuy woote parce que wér gu yaram la ñu bëgg wér gu yaram bi ñuy woote pour mu gën a am pour ñu gën cee jàpp mooy lan nañu nañ ko dooree foofu. ñu teeru woon leen fii ci cees joolaa yeeg séeréer yi kenn desul ku ci nekk wane maninam doon génne seeni cosaan. ci wàllu culture la ñuy dikk daal ak festival bii di l'Afrique en danse fukki fan ak juróom-ñeent ci février di 19 lañ ko fas yéene ubbi loolu nag tax na ba kii di mbay Dieye fay bu 55 rythme bokk ca ñoom nag daje woon nañ ci seen biir ngir fësal lan mooy taxawaayu festival boobu euh, te itam mu nekk festival boom solo boo xam ni ci wàllu caada Sénégal ak Bénin ku ci ne dina ci indi wone li nga xam ni moom nga moom compte rendu juuf ak Ababacar Camara. ay tëggkat ak yi xumbite yu bëri liñ ci jublu mooy fexe ba lëkkale dëkk yi réewu Bénin ak réewu Sénégal loolee nag boole askanu afrig ci li ñuy duppee caadak dinañu wéy dinañu fecc dinañu waxtaan tamit jàpp naa ne lu am sol la voilà et c'était magnifique. bokk na ci ñi ci soobu ci projet bile artiste bi di Mbaye Dieye Faye ak groupe am Sing Sing am occasion rek ngir bokk ci ñuy weccee li nga xamante ne rek moom moo leen gën a ñor ci wàllu cosaan ak aada. waaye nañu feet nañu waxloo nañu ndënd yi looloo amoon solo. Sénégal Bénin. c'est la famille c'est ça non. l'African Dance lañ ko duppee liñ ci jublu rek mooy fexe ba gën a diggante dëkk yi. loole nag fecc dina ci am solo lool ak itam yeneen lu am solo fii ci suñu continent. l'Afrique en danse ah oh oh festival African Dance lancé nañ ko. ay tëggkat yu jóge Sénégal ak Bénin dinañ lëkkaloo ñoo ñooñu nag gannaaw seen manifestation yi nar a teewal réewu Afrique ñoom ci loolu sax dimanche bii di ñëw ñu nar a amal xumbite bu rëy fii ci Ndakaaru. L'Afrique en danse. Ah oui, ça va, ça va danser. yi mu nekkoon xibaar yi marax yi ak télévision Futur Média fii la ñuy yem ak yéen di leen jox daje incha allah ci yeneen jotaay xibaar bu caalande juróom-ñetti waxtu ci tubaab di ngeen ci ànd ak Leya Sukena Ndiaye jërë ngeen jëf.